Heavy Bass.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 ñetti nit tegooti nan ci fi mu ne coowal mbës mi jural na réew mi fukki bakkan ak juróom-ñaar ci ay dégâts matériels yoo xam ne foo ko natt ëpp na ko ay Auchan yu ñu taal këru leader yu ñu lakk ay piis yu ñu taal ay centaine de personnes ñu teg leen ci loxo teg ci coow la taxawal réew mi <laughs> waaye si booxul ma bile procès xam ngeen ne bi ñu jàppaatee atte bi Ousmane Sonko dafa lank ne di wuyu ji yoon dal di wote désobéissance civile woo ay ñoñam ci résistance tey coowal mbasi Ousmane Sonko yamul foofu de ndax bi mu nee du wuyu ji daf cee teg dem replié wu fële ca feesam di Casamance ay avocat bi bu ñu gisee Ousmane Sonko mooy gis nañ ba marlee dekki ñëw ca tribunal ba tey coowal mbës mi Ousmane Sonko bi mu replié ca këram ja ca Casamance ay ñooñu ma fa ñëw dal di koy barricade taxaw ne kenn du laal seen leader te ñëpp xam ne zone boobu di Ziguinchor la fay nelaw kenn waru kaa de résistance bi Ousmane Sonko def na am na jàpp ne stratégie bu dangereux la ndax mën naa yee mbirum xeet ak li ñuy tuddee régionalisme ña ca des jàpp ne Ousmane Sonko toroxal gi ñu koy toroxal saa buñ ko woowee foofee ca cité kër góor gi di ko brutaliser ko toj ay veeri otom teg ci xañ ko àqam ak yelleefam saa bu procès ñu jàpp forcé yóbbu Ousmane Sonko bu defee lu ni mel moo yay ndax kat wala fa lépp kuy bëgg dee wequ cëy bi procès en am ba am daal mooy procès bi gësam na réew mi yëngal gannaaw yëngatu yeeg coow yooyu ba bakkan yi rot procès ba dàqati nañu ko Ousmane Sonko dina wuyoom du wuyu ji li ci kanam raw li gët te Ousmane Sonko nag bu nanguwul wuyu ji mën nañu ko atte par contumace te loolu nag mën na jur gàllankoor gu rëy ci avenir politique am ay avocam daal nee ñu bu ñu respecté ay droit wu Ousmane Sonko Ousmane Sonko mën na teew ca atte ba waaw moo gën nag bu dee boor bee nag di aji Sarr ak ñooñam ñoom nee nañu procès rek laa wax ku ne loo am indi lu golo xam boote doomam bëgg bëre bañ bëre cey bi le ma tekki na nag procès mbës moom lañu fay wax ak lay toq ci nopp maara dee taali moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca guddi rek ca romb na doy waar ab soxna daal moo fa exposé awraay borom këram ci whatsapp ngir bëgg borom këram may ko baat ay waay borom këram boobu nag nee ñu mu ngi wuyoo ci turu bee njaay ne ca bitim réew ndaw si daal daf ko ñaan baat mu lank mu jël ay photo jëkkër ji yoo xam ne nam ca nekkee maara dee taali dal koy envoyé belle-sœuram mu nan deetawaay ndaw si teg ci envoyé ko xaritu jëkkëram waay ki lee sadik ma ndaw si yamul foofu dee ndax dafa diviser ay audio yoo xam ne ma nga cay menacé ji ne su ko mayul wil baatam dina wili pande photo yi ci réseaux sociaux yi jëkkër ji nag ba mu sonnee daa mujj porte plainte ñu arrêté ndaw si placé ko garde à defeere ko ca parquet dal di koy mandat dépôt di ko toppee li tubaab naan extorsion collecte illicite et diffusion d'images à caractère pornographique ak li wolof wax naan yàq vie privée nit ndaw si nag ca kanamu yoon nee na lu tax mu def lu ni mel mooy jëkkër ji bi koy takk dakaa fena fena fen ba maara dee taali ndax jëkkër ji daf koo diggal ne bu ko takkee dépense am dootul manqué te ndaw si nee na fi mu ne dépense mu mat sax mënatu koo am jëkkër ji nee na woon da koy yóbbu France ba léegi France ne woon na daf koy jëlal appartement ba léegi France jëkkër ji ne woon na daf koy jox sax weer deux cent mille ba léegi France jëkkër ji ne woon na it daf koy ubbil boutique ndaw si ne ba léegi France looloo tax mu koy ñaan baat ba def lu ni mel daal ma ne ko nag ëpp na ëpp na ëpp na dëgg la nag góor ñi boo leen dee takk dee leen wax dëgg waaye nag sa jëkkër def la li rek nga jël ay bagaasam daal di koy weer ci internet ba noo jaru ko nag mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz